Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm ci yëglekaay yi réew mi quotidien la ñu koy dooree moom mi xëyee ni ki tey ji nag lu jëm ci examen entrée en sixième ak UCFEE yi nag yéenekaay bi ne fi mu toll nii nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di l'armée bi ñoom la ñu jox nag épreuve yi ngir ñu war ko yóbbu ci centre d'examen yi yenekaay bi ne ay militaire daañu leen wàccee ci terrain bi nag ngir ñu daal di sécuriser centre d'examen yi nekk fépp ci biir réew Sénégal 24 heures yéenekaay ne ko lu soxal wàllu examen en sixième yooyee nag lu ëpp ñetti téeméeri junni ci ay candidat nag ñoom bindu nañu fas yéene sëgg ci jongante yooyee nga xam ne rek ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin fi mu toll ni nag matukaay yi war yëpp daat nañu koo jëlal démb la ko Pape Baba Diassé mi nga xam ne mooy directeur des examens et concours daal di xamal ñii di way taskatu xibaar yi des ba tey ci réew mi quotidien mi nga xam ne rek xëyee na tey jii ci xibaar bu neex ñii di njaayeen yi mu di njëg mburu mi nga xam ne rek wàññi nañu ko jamono ji ba mu toll ci fanweeri dërëm Sud Quotidien daal di koy feelu ne yemul ci mburu mi rek gaay wàññi nañ njëgu dund gi lu ci mel ne duwliñ wàllu suukar seeg ceeb bi ak ciment beeg farine bi lépp la ñu daal di wàññi te wàññite googee nag niki altine ji lañ ko fa yéenee tàmbalee doxal conseil national de consommation bi nag démb la ñu amal ab ndaje séequ ko ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu commerce opérateur économique yëg ñi nga xam ne rek ñoo di industriel yi ca lañ daal di fas yéenee nag soobu ci lépp loo xam ne rek moo di wàññi njëgu dund gi nag ngir mu daal di jàppandi ci askan wi te loolee ko tàmbalee doxal altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2024 quotidien yëglekaay addu moom it jëmale ci wàññite gi nga xam ne rek kilifay Sénégal bëgg nañu ko indi ci njëgu dund gi rek ma ngay xam ne ni njëgu mi fi mu toll nii ci fanweeri dërëm la ko daal di yóbbu mu di xam ne rek daañu ko tàmbalee doxal niki altine ji nag ci biir yëglekaay bi di 24 heures moom Serigne Gueye Diop ma ngay xam ne ni nag lépp luy ay matukaay daañu ko jël ci nu mu gën a gaawee ngir lépp daal di mën a yemb conseil régional bi ñu dénk wàllu consommation nag moom dana convoqué ci nu mu gën a gaawee nag ngir mën a xool it nu ñu mën a def rek ba mën a càmbar wàllu transport bi ci biir Sénégal

doxal bokk na ci wàllu ceeb bi nga xam ne rek léegi mi ngi jar quatre cent dix francs ci wàllu kilogramme bi suukar si fi mu toll nii nag kilogramme bi ñu ngi koy jaayee téeméer ak ñaar fukk lu jëm ci wàllu mburu mi nag kilogramme bi fi mu toll nii nag fanweeri dërëm ca lañ ko natt sac de ciment bi nag kilifa Sénégal yóbbu ko ba ci trois mille cinq cent cinquante francs loolee nag di ay njëg yoo xam ne rek bu ñu sukkandikoo ci kilifa yu Sénégal ñëpp da ci tënku nag obligatoirement waaye ay saytu daañu ko ci boole nag wàccee ñii di takk der yi nag ngir ñuy xool naka lañ koy doxalee bi jëwriñ ji ma ngay xam ne ni nag daañu xalaat nu ñu mën a def rek ba appel d'offre international yi nag ñu daal di koy wàññi nag ngir gën a mën a wàññi njëgu dund gi te fileeg ñetti weer nag wàññite gii bu ñu ko doxalee nag daanu gis ay résultats yu mucc ayib ci askan wi àddu jëmale ci leneen ak bés bi la jour mi nga xam ne rek xëyee na tey ji ab gëstu bu yaatu boo xam ne rek amal na koo jëmale ko ci wàllu état civil ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ci di jànkonteel ak lu jëm ci wàllu publicité yu ñu koy amal ci biir yëglekaay bi nag victime yi ña nga fay yuuxu am ku naan nag man moom la ñu daal di def nag ci sama numéro registre am keneen koo xam ne rek moom nee na dafa waroon a def bac waaye bën a gën a sii nag jafe ay papier rek mooy li ko ko teree def Jibril Wade di maire bu Biscuiterie nag di xam ne ni lu ëpp ci yooyu ak la koy waral nag bokk na ci lakk-lakk yi nga xam ne rek yenn saa yi dafay am ci biir mairie yi Aliou Ousmane Sall di DG bu ANEC ne loolee léegi mu jeex ndax bu fekkente ni nag état civil numérique bii nga xam ne rek moom la ñuy taxawal dina xeex lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu fraude ak corruption yi nga xam ne rek mooy am ci dossier yu état civil yi wax ci wàllu politique ak Amadou Ba mi nga xam ne rek moo fi nekkoon candidat ci élection présidentielle yi moom amadu Ba fi mu toll nii nag yëglekaay bi di Le Quotidien ma ngay xam ne ni nag fas yéene naa jàkkaarloog ay responsabilité mu yees ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne balaa yàgg dara daa daañu taxawal ab nouveau cadre boo xam ne rek fi léegi fan di ngeen ñu ci dégg libération feelu ko ne ko Amadou Ba jamono jii kay nag fas yéene naa taxaw nag jël ay matukaayam ngir doxal wane boppam ci langue politique gi jeexale yëglekaay yeeg lu jëm ci wàllu tàggat yaram euro 2024 ak ci groupe D bi nag yéenekaay bi di réew mi sport ma ngay xam ne ne France ña ngay kale ñii di waa Autriche ba tey ci wàllu football la ñuy àddu jëmale ak kaan bi nga xam ne rek daanaka soppi na aw datam yéenekaay bi di L'As Quotidien ne kaan boobee nga xam ne rek ñu ngi ko war a amal 2025 ca Maroc waa CAF nag ña ngay xam ne ni daal dat boobee nag dañu koy soppi yóbbu ko ba ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2026 mbokk yi léegi noonu fa séeglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3